loolu moom saa bu amee moom kenn du ñëw si marché bi marché bi kenn du fi ñëw man tailleur laa saa bu amee loolu kenn du kenn du liggéey kenn am depuis keroog ba léegi kenn maanaam kenn ñëwu fi pour muy leer parce que nit ñi dañuy ragal manifester am dañuy ragal du clients yi duñ ñëw kenn du ñëw. maa commerce bi mais. comme réew mi tey bu commencé bu bu amee ay yëngu-yëngu wala ay kii waxuma la ñun mais ñi nga xam ne ñoom lañ war a jaay jëflanteeg ñoom ñooñu duñ am pour ñëw seen fii sax du leen may pour ñu dugg si ci ci biir biir Sandaga bi. donc ñun bu ñu ñëwee dañuy toog ba sonn rek dem ñibbi wala parfois dañuy ñëw sax découragé ñibbi waat noonu. wax dëgg yàlla bu dee dëgg nga bëgg a dégg moom tere nañu liggéey parce que gis nga dëkk bi ni yaa ko gis kenn ñëw fi di bañ ne arrêté nañ Ousmane Sonko di vendredi soir. ba léegi nii gisatuñu client yi pour ñu ñëw dugg si Dakar ville te ville sax moo ëpp sécurité ca yeneen gox yi mais gisatuñu client daal pour liggéey. waaw waaw xaw na tane quoi xaw na tane mais parce que surtout si mi nga xam ne man si domaine bi may yëngu ko comme côté tableau d'art ndax boo ko xam aar xam ni clients yi si ëpp tamit c'est c'est des étrangers les européens affaire yooyu mais xam nga ñoom tamit seen ambassades yi dañ leen di avertir. xam nga pour par mesure de précaution xamal leen ni bu leen génn tamit te ñoom presque ñoom mun naa il ils font partie de nos meilleurs clients waaw ils font partie de nos meilleurs clients te ñooñu tey dañuy toog seen biir kër wala seen hôtel ñu nekk ak yooyu duñ nangoo génn. fii moom gannaaw boo bëggee dégg dëgg fii amuñu bëri ñu nekk suñu biir sax dañuy jéem a dem jaar si yoonu suuf yi dem voyage parce que dëkk bi mu neexul dafa metti wax dëgg yàlla gars yu bëri découragé nañ dañuy toog nii nii rek demal suñu ngor nii rek mais ñu bëri dañoo découragé. ñii ngi dem bu yàggul dara suñ benn copain Touba Sandaga lañ ñëwee si gaal gi la demoon si la gaañu. non amuñu ko fuñ ko mënoon am ci internet bi lañ amoon mais fi ñu toll dégg ne coupé nañ ko tey bu amul wifi sa kër xanaa doo jóg liggéey delluwaat sa kër di liggéey fi ñu toll yaa ngi ci marché bi boo mën nga yem yenn client yoo xamante ni man nga cag cag jox leen bagage ak yooyu te loolu yombatul parce que coupé nañ coupé bi fooy liggéey